Euh, xam nga ni justement justement euh, euh, le 22 janvier PDS dañ def conférence de presse ñu ne dafa am des soupçons de de de relations douteuses entre yow Farba Ngom Abdoulatif Coulibaly ak des membres du conseil constitutionnel et c'est sur la base de ces accusations là le PDS dafay demande d'enquête parlementaire Benno Bokk Yaakaar génne communiqué soutenir ko ñu dem assemblée ñu voté la mise en place. de l'enquête de, de la commission parlementaire d'accord naa et puis et puis xaaral xaaral et puis gars yi yokk ci ne. Euh, Farba moo jox magistrat yi 3 milliards ñii naan Farba 2 milliards la jox joxe ñii naan Farba moo joxe ba pare enregistré euh, dem jox ko président c'est-à-dire ce tour c'est au cœur de cette. non man man yàlla dogal. waaw. ma doon ku weex dung bu dee. mbir la boo xam ne càngat la tamit mbir bu nangu la. ñaan bu nangu la waaw ñaan bu nangu la 2012 ba tey luñ fi wax ci wàllu kii rek même bu dee aañam la ma fekk may tëdd na wala bitim réew dañ ma ci boole. loolu sant yàlla yaakaar naa xëy na di ci gërëm Thierno Djib Ousmane Ba bu Mbambilor ak doomam di El Hadj Malick Ba. Euh, ñaan biñ may nang <laughs> biñ may ñaanal. benn bi moo ëpp. non mën na am damay sentir ne nangu na. <laughs> est mais, que Baye Rewmi kese la mais cette conférence de presse nee nañu soupçon la xam ku soupçonné amul preuve kooku doo ci porte plainte mais dañ la tudd ci lu. oui mais buñ ma buñ ma doon wax interpellé ma ci yenn yi mu wóor ma ne lii kii la rek dama koy woon yoon mais aussi aussi nga comprendre mbir je vais te dire une chose Maïmouna cette charge de ce pays. nekk ñépp membre du conseil constitutionnel ki ma ci xam téléphone am amul l'ART ARTP est là Orange est là euh, euh, euh, comment dirais Tigo est là Expresso est là société téléphonique yépp te ñaari numéro laa yor ça peut être ndax am naa numéro si les sept chars de ce pays en commençant par ku ñu wax kamara Camara jusqu'à ki gën a tuuti ci ñoom ndax xam naa turam xam xam naa seen tur mais amu ci kenn ko xam ne am naa seen numéro téléphone fu leen neex lañ dem wëri ndax am naa numéro téléphone amu ci kenn ko xam ne mus naa la fréquenter ku am photo boobu wala gis ne mus naa fréquenter kenn am na ko génne loolu du du question damay leeral sa bopp même ñoom dama leen di leeral te li may wax yàllaa tax ma di ko wax gisuma dégguma bu ñu waxee nag ay 3 milliards jaar na sama loxo 3 milliards bi ñu ko waxee jaar na sama kuñ ko ku ku ñu wax ne moom moom ma ko jox. Amadou Ba waaw Amadou Ba nag bu fekkee ne seen 3 milliards yooyu am na ku ko gis na ma na ma na ma ko jox ma dem dolloo ko ndax xam naa ne am na ci soxla il est candidat il a bossé quand même les de la guerre mais loolu may mun a mais aussi ma am lu may xalaat ndax politique mbirum àdduna la lépp fi la am. parti démocratique sénégalais kenn mosuma gis dégg ci sama jaar-jaar ci wàllu politique li ñu nekk assemblée li mu nekkee xuloo xulookat ak li ma nekkee politicien yépp ma jël kàddu di ko wax Ablaye Wade wala di ko wax Karim Meïssa Wade par principe duma ko def ndax Ablaye Wade xam naa ko am na lu mu def ci biir réew mi président de la république boo xam ne douze ans wax dëgg yàlla munoo wax ne Ablaye Wade defu fii dara ci biir loolu man duma ko nangu duma ko gëm impossible benn beneen bi ci aussi topp Macky Sall mi nga xam ne moom laa def sama imam ci wàllu politique bien encadré par Abdoulaye Wade à l'époque musuma ko gis même temps opposition Wade nekk au pouvoir musuma gis Macky Sall yëkkati kàddu wax dara ci Abdoulaye Wade wala wax dara ci keneen ku dul ab impossible du jëkkam donc euh, su may xeex ci wàllu politique bugguma lu may xeex xeexee yépp les gens du PDS nekk parti démocratique sénégalais parti politique bi ma njëkk dugg loolu souvenir la ci man sama àdduna donc ñooñu euh, ma dem ba toll ak ñoom fenn danañ ma jiiñ dara même bu dee lu amul ma dem ay police ay tribunal di ko def di déposer ay plainte jombal naa ko sama bopp mais j'attends ces moments comme ça pour parler à l'opinion ko juge yi les sept charges amu ci kenn ko xam ne am naa sa téléphone amu ci kenn koo xam ne xam naa sa kër amu ci kenn koo xam ne mës naa la fréquente du sa biro du sa kër am ñoom aussi du sama biir du sama kër. yóbbuwuloo xaalis. non damaa gisul sax luy couleur xaalis. corrompre loo leen. pour le compte li ma la wax pour corrompre nit pour yóbbu xaalis <clears throat> da nga koy xam nga miin ko xam këram xam téléphone mu xam sa kër wala xam sa téléphone wala xam sa bureau sept les sept charges yàllaa tax may wax amul ci kenn koo xam ne xam naa sa kër. ou xam nga sama kër ou séq nañ ni wala leneen. mais mais mais Farba accusation bi. accusation bi avec non accusation bi am na ba pare. en fait Latif Coulibaly. Latif Coulibaly c'est mon grand dafa dafa démissionné. de son poste au gouvernement. parce que nee na. Euh, moom mënatu woon toog. di mu le magistrat Cheikh Ndiaye dafa porter plainte. contre X à la suite suite de ces accusations. tu voudrais tamit ma porte plainte. ñooñu li ñu teg ci seen li ñu teg ci sa der yow. waaw ñu ko ci seen der. mais pourquoi yow doo porte plainte pour wan sénégalais yi. xam nga nee nga ne liñ lay waxal dara. nee nga ne juge bi dafa dem porte plainte pour leeral boppam. Abdou Latif Coulibaly la tudd moom tamit nekk secrétaire général du gouvernement. dafa démissionné mais avec tout ça Latif sama grand la on a de très bons rapports. nii damay woo dama koy woo damay dem këram di ko seetu ñuy waxtaan musuma dem émission presque politique te woowuma ko mu jox ma ay xel xelal ma ndax ku ñëpp xam ne ne wax dëgg yàlla xarañam ci wàllu métier di journalisme loolu yaakaar naa mën nga ma ci seede mais man su ma jëlee plainte di ko xalaat sax di ko jëmle ci waa PDS sama xol moo du nangu loolu ragaluma de xam nga ne man ragaluma du ma ragal fekkewuma fu ñuy ragal mais qu'est-ce que je vais dans ma carrière may gunge ànd ak Macky Sall def ces douze ans de pouvoir on est en fin de mandat waa PDS def seen déclaration ci wàllu politique walla conférence de presse cité ma ci tur loolu c'est la politique su ma bañee ñu tudduma ci wàllu politique dama koy ba damay lem samay bagage donc bàyyi poli mairie bi bàyyi député bi dem toog. boobaa xoolal ñi nga xam ne ne tey defuñu activité politique mu nekk seen activité kenn du leen ci tudd. mais lan la ñuy <coughs> lan la ñuy mu bu Ablaye Wade jiite Karim nekk doomam ak ñi fa nekk ma xam leen président du groupe parlementaire di Lamine Thiam ma miin ko daanaka bu bu weesu Abdoul Malak Diop ki ma njëkk may billet Makka deuxième personne ci biir réew mi ki ma may billet mag c'est Lamine Thiam en tant que questeur dafa am loo xam ne ne sama xol duma ko may personnellement. mais mais mais d'accord léegi Farba lan la ñuy retenir en définitive que accusation corruption bi amul. yow corrompre magistrat. non non li ma la wax Amadou Ba Amadou Ba yónniwu la nga corrompre magistrat que loolu. argument politique la loolu nga bëgg ñu retenir. non c'est-à-dire que li nit ñi di retenir xaw ma ko mais man ma wax la lenn nag du ñu ngi ci émission dinañ egg ci ay questions yoo xam ne bu dee posé nga ma ko du ma ko wax nag mais bu dee posé nga ma ko man damay leeral man mois je parle ce que je pense li nga xam ne moom laa gëm moom laay wax. nee naa la Amadou Ba jox ma dërëm pour corrompre les juges dama xamul numéro téléphone gis yi ci télé ci télévision laa ko waxee et c'est vérifiable tey sénégalais yi koo waxante ci biir réew mi la le demee mën nañ la tegal jokkoo nga telle heure jokkool nga tel jour ñaata minute lii ngeen wax réew mi am na su boobu technologie tout le monde kuñ bëgg a déglu déglu du ci whatsapp du ci téléphone te yàlla dimbali na ma man j'assume ce que j'ai bu dee demoon naa ci ñooñu yóbbu xaalis bu xaalis jóge na ci Amadou jaar ci man je suis pas au courant set cette opération nii tey nii suba te yàllaa tax ma di ko wax waxuma ko di laver man rek sama bopp di laver est-ce que mën nga dem ba ne est-ce nga dem ba ne loolu amul est-ce que ñeme nga dem ba foofu ah oui waaw yàlla xam ne ne loolu amul musut am xanaa ci keneen mais man jaarul ci man yéeguma ko tinuma ko musuma ci wax ak Amadou Ba musuma ci wax ak juge xaw ma seen téléphone xamuñu samay numéro mais man waa léegi sul am c'est faux c'est archi faux xam nga seen affaire bii dafa am lu bari lu ci doy waar c'est-à-dire yow membre éminent APR nga logique Ba c'est le candidat de l'APR ñu jël ay soupçons yoo xam ne xam naa ne bi mbir mi jubee président woo na la ñu jël président waxu ceex non bi ñu déggee bi nga déggee association président laa non dama lay laaj. laaju la woo na ma mais ma woo na ma. waaw jeudi bi mu ñibbisee. waaw ñoo bokk ñoo bokk reer. lu mu la wax. parce que loolu li may wax ak président ñëw wax la ko. fii ci bi ma mais est-ce que interpellé na la ci sujet. non du tout. xam na ma je vais te dire une chose Macky dafa xam engagement bi ma bi ma am ak moom ci wàllu politique yan yi même bu ko ko nit waxee duma ko laaj. waa léegi parce que je vais te dire man. bu fekkee ne loolu amoon na buñ ma ko joxoon laa la wax moo koy yóbbu moo koy njëkk yëg kon xam nga ne kooku duma ko laaj. waa léegi. bu doon loolu am na moo koy njëkk yëg. waa léegi man du daw dara. wala di dox dara wala di poser ay acte ci wàllu politique Sénégal tant que Macky Sall a fi. waa ci loo xam ne yëgu ko wala tinu ko. wala waxtaanu ma ci yow ngay nekk au centre des opérations. Amadou Ba di mooy candidat wu Benno Bokk Yaakaar. ñu jël accusation yu toll noonu. xaaral xaaral xaaral ba xaaral ba boole ci Latif Latif Coulibaly. ñu jël accusation yu toll noonu teg ko ci seen ndodd sur la base de ces accusations là ñu teg une une une commission d' enquête parlementaire. pareeguñu commission d'enquête parlementaire bi ñu dugal proposition de loi reporter l'élection bi Farba il y a deux choses soit Macky la am na doute ci liñ ko wax ndax dëgg laam du dëgg wala dañ leen dañ leen utiliser dañ leen dañ leen xaaral dañ leen utiliser pour comme agneau du sacrifice pour justifier un report des élections non loolu déglu ma la rek. surtout yow. loolu Amadou Ba sax gëw ma mu mu mu nangu loolu. <laughs> ñu utiliser ko comme agneau du sacrifice moom da nga koo sopp trop. non Ba sax gëw mu nangu loolu mais yow mii Farba wa wala da nangu. ñu teg sa mën na ko justifier. yow Farba yow pare nga tey ñu teg lu bari ci sa ndodd. nga nga nga nga noppi dem mais naa engagement ci Macky Sall. waaw. Ah. ba foo ko nattu weesu na ko te dara du ko fi jëlee. man du ma doon je suis né en Giloon laaw ceddo yi ñooy gouverner tey nag actuellement sama nijaay koo xam ne moom ak sama yaay ñoo bokk ndey ak maay c'est le maire de cette commune di tudd sama Leelo Seck mais ci taarixa y a que des guerriers qui ceddo yi ñoo ñu yar man ci loolu laa juddoo musuma dellu ginnaaw de samay engagement nii de samay conviction yarewuñ ma ko yow te dire une chose loolu la neex nga xalaat yow may moom lu neex kenn mu xalaat mais buñ ma waxee dara mu wóor ma ne lii maa ko def ci penc mi laa ko def. mais def lu tax ngay nangu ñu lay conduire à l'abattoir. mais lu tax ngay voté ay commission d'enquête parlementaire. mais nga ne. defoo dara lu tax ngay comme ngeen di ngay ngay soutenir affaire boobu pourquoi ngay voté ay commission d'enquête parlementaire enquête bi. waaw ma bañ ko soutenir. waaw pourquoi. parce que jiiñ nañ ma parce que jàppoon na leer na la man sax maa war a gën a soutenir enquête parlementaire bi comme que jiiñ nañ ma te luñ ma jiiñ te archi faux tout est faux man kay maa war a soutenir enquête parlementaire bi est ce que xam nga jur boobu 7h30 laa dem assemblée fa laa ndekkee rien que pour feeñ toog taxaw nëbbutuwuma fekkee loolu taxaw nag jël kàddu ne bii paa dinaa ci woote sama ñaari loxo même bu ay tànk doon woote sax dinaa ko woote pour ñu enquête loolu bis boobu. jëluma kàddu wax ma wax wax ci accusation bi mais je suis venu pour en tant que député à l'Assemblée dañuy def enquête parlementaire war a dem saytu xool ñu ñu tudd ñu tudd seen tur man buñ ma woon mu leer loolu laa loo soo gisee ma toog lu yàgg waxuma dama doon xaar enquête parlementaire bi bu amee effet dinaa bokk ci ñu ñu ñu waaw même si je suis député pourquoi pas ma dem wuyu wax li ma xam bu ñu paree état bi am na ay pexe seet li ma bëgg a xam ci biir réew mi te def nga ko bu leen neexee ñu xam ko en quarante huit man loolu man maa war a gën a mën a teel a ñëw ci enquête parlementaire bi pour soutenir cette enquête parlementaire kon wóolu naa sam bopp euh, ku wóolu boppam kay mooy kay day def comme ni ma def section boobu nee naa la tant que PDS ñoo ma ko def li ma mënoon mooy ñëw jàpp ci enquête parlementaire voté su bis bi jotee nga ma war a jàkkaarloo ak askan Sénégal yi wax leen ni amul sept ils sont sept juges amu ci kenn koo xam ne xam naa sa téléphone amu ci kenn koo xam ne jox naa la sama téléphone amu ci kenn koo xam ne mës naa dem si bureau wala mës ngaa ñëw sama bureau wala sa kër wala nga ñëw sama kër ñooñu amuñu jokkoo ci loo xam ne ne war nañ ma mën a yónni ñoom ba ñu am confiance sax man ak ñoom ñu ñu ñuy doxal loolu on n'a pas ce genre dafa am ñuy jàpp man rek leen xam ci dégg mais bu ñu bu ñu ma romboon nii xaw ma kenn ku ne. dafa am la mel.